je pense que Abdou woo na la voilà donc loolu mu nekk loo xam ne lu rafet la kon tey sa ñëw fii ñëw la boo xam ni ñëw bu am mbégte la ci ñun waa Grand Thiès ndax du gulet du gulet parce que tey jii su fekkee ni ASC Diamaguène mi ngi dem phase nationale ASC Grand Thiès di dem phase nationale nga def lu am solo tam ci waa jàmm gën jox leen lu baax lu takku nga ni soo fa jógee di nga ñëw Grand yaakaar naa ni loolu tey ji fierté la ci ñun man sax xawoon naa tiit ci ñaari fan yi ndax ba ma déggee ni dem nga Grand ma toog benn fan ñëwoo dem nga jàmm gën ma toog benn fan ñëwoo Grand Thiès ma xaw a tiit ma ni ah monsieur le maire Madou dafa juum di te loolu yëpp lu ko waral mooy daw géej ba ñuy dem phase euh, euh, nationale contre ñu ne waa Mbour dafa am benn affaire bu ci amoon ci diggante bi li tax ma tiit mooy dañ ñu mayoon un million may Mbour un million affaire yi jaxasoo nag jotuñu suñu un million Mbour un la moom jotul un million ñu jékki-jékki gis nga jox jàmm gën xaalis. te ñëwoo Grand Thiès ma ne ah ñun de lii bu ma ko dégg bu ñu ko déggee damay ragal gars yi ne mbaa président Babacar Diallo Talla jox ko xaalis mu lekk sama xel dalul ma tiit moo tax bañ ma invité rajo man maa doon première invité rajo ci FM xabaar nawetaan dama ko fa sax wax ndax tiit waaye moo tax tey sa ñëw fii bettu ñu di ko rafet ci ndigal nag suñu doyen famille ñu du ko rafetlu di am contentement vraiment sa ñëw fii tey jii ay bett ñu ci yow parce que yow nit nga koo xam ni nit ko diin nit nga koo xam ni aussi euh, nit ñi ci boppam ñoo la bëggal seen bopp boo ko bëggul woon sax nit ñi ñoo la bëggal seen bopp parce que maire koo xam ni day dem di for ay mbuus di for ay këyit lu xew mu dem bu safaan amee mu dem su ngénte amee mu dem su takk amee mu dem luy xew ci biir Thiès taala ma nga ci biir loxoom ñu ngi ci tànkam ma nga kon loolu Thiès yëpp rafetlu nañ ko mu nekk loo xam ni tey jii sa ñëw Grand Thiès pour accompagner ASC Grand Thiès pour mu dem jëli ji phase nationale indil la ko kon tey jii soo fi ñëwee ba pare nga ubbee ñaan. ah ñun de wax dëgg yàlla suñu xel dal na monsieur le maire buñ la ko waxee ak buñ la ko wax suñu xel daj na dal na kon nag lu taxoon ma jël keroog le maire Sergi ba mu ñëwee fii ma jël cadeau préparé la jox ko ko parce que damaa gis li ngay def biir cees gis mbébét bi nga xam ne moom la nekkee biir Thiès moo tax keroog ma defal la ko parce que xam naa yow ki nga doon moo tax man Babacar Diallo ma defal la loolu tey jii soo ñëwee fii tey jii jël say tànk wax xam nañ sa occupation kon tey jii waa Grand Thiès yëpp seen xol sedd na ku fi toog ku ñëw ak ku ñëw seen xol sedd na ñu dala ñaanal yàlla li ngay mbébét yàlla na la ko yàlla defal li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal ndax li nga bëgg yow rek yaa ko xam ñu nit lu ñu bëgg ñun rek ñoo ko xam waaye nag jàppalante baax na ndax kuy def lu baax il faut ngay am lu baax kon nag monsieur le maire kàddu yu gàtt yooyu rek laa doon sànni di la jaajëfal ci turu waa Grand Thiès yëpp ci staffu ASC Grand Thiès yëpp di wax ni daal ñu ngi lay ñaanit nga accompagner ñu ba phase ya ñu bañ am benn naqar am benn métit ba daal nga teg ci sa tànk te jàppale ñu te xam ni couleur région de Thiès la ñuy demee mais demeewuñu couleuru ASC Grand Thiès couleuru région bi la ñuy demee te région bi tey jii bu ñu nee kan mooy maire Thiès dañ naan Talla Sylla moo fi nekk kon nag boo ñu accompagner ñu dem yaakaar naa ni yàlla dina la sutur ñu dala xamal ni yow yaay première koo xam ni yaa doog a ñëw pour seet si ñu kon tey jii lu tax ma invité presse bi ñu ñëw dama bëgg lépp loo xam ne dañ koy def mu leer parce que ba ñuy jël phase nationale fii yaakaar naa ni nii lañ ko doxale woon tey moo tax ma commencé waat ko encore indi presse bi indi télévision pour ñu wane ko parce que ku def lu rëy dañ la war a xoolee bët bu rëy te dañ la war a xoolee bu rëy kon loolu moo doon sama wax salaamaaleykum wa rahmatulah. ak ci seen sant voilà donc man euh, maa ngi tudd Abdou Kassé donc di fi représenté Thierno Alassane Sall le ministre Thierno Alassane Sall ministre de l' énergie et du développement des des énergies renouvelables alors donc moom moo ma sànq ne ma. dama bëggoon nga dem teewal ma ci rencontre bi nga xam ni mooy am fii ci kër Babacar te le maire monsieur le maire Talla Sylla war a ñëw fekk si ko dans la cadre des nawetaan ma ne ko loolu je le ferai avec plaisir parce que Grand Thiès lu mu soxla man maa ngi ci rax ci dolli Babacar nekk sama xarit lépp lu muy def boo ko yëgal donc maag moom dañoo déggoo parce que li ñu tax a jóg mooy le développement di quartier de Grand Thiès lépp lu ñu ci woo dañ ci ñëw bon Thierno Alassane Sall aussi le ministre nekk aussi ku nga xam ni à chaque fois bu Grand Thiès soxlaa day jóg tànk sol sol dàllam dox ci def ci li ko war donc moo tax mu woo ma ne ma dem ci alors je ne suis pas surpris aussi bi ma fi euh, bi ma ne tànn si laa day jógee mairie ñëw fii ci kër Babacar je ne suis pas parce que je connais l'homme on a fait le lycée ensemble ñoo ñoo jàngandoo ba terminal je me rappelle à je pense trois mois du bac la arrêté la arrêté njàng mi dem Mbour ñi ñi naan waa taal lu muy def nii ndekete moom maa ci ay révision moom te teewul bii bac bi ñëwee da am ak mention alors mais euh, je ne suis pas aussi du fekk moom mu ne damay jógee mairie ñëw fekk si leen parce que yéen parce que bu askan bi soxlaa moom dafay déplacé wu ñëw je ne suis pas surpris parce que je sais que il était bien en philosophie te te philosophie dafa bëri ay symbole dafa fees ci dafa bëri symbole lii symbole la lii mooy rek bu ngeen soxlaa damay ñëw ñun ñëpp benn la ñu ay affaire ay mairie ay affaire ay bureau yooyu daf ñu tardeel dañu proximité toog waxtaan lépp lu war a jëmale Grand Thiès kanam moom mu def ci loxoom ñu ànd avancé donc je pense que symbole boobu lu ma neex la alors donc nag di leen du ma gudd ah di leen ñaanal vraiment di ñaanal euh, ASC Grand Thiès bu demee ci jogante ba am fa ndam di ñaanal aussi la monsieur le maire lépp lu mu am ci doole xam ne war na ko mën a def ci ASC bi mu mu defal leen ko parce que ASC Grand Thiès mérité na ko c'est une grande équipe jàgg na relever ay défis donc bu xewlee mu mu mu mu mu dugal ci loxoom di leen ñaan aussi man homme de culture la di leen wax aussi que ni ASC du rek ay ASC dafa am dimension sportive mais am am na aussi une dimension culturelle la cette dimension culturelle aussi da ngeen ko dundal théâtre yi ah et cetera peinture exposition tout ce qui relatif à la culture ngeen koy dundal ba bañ a rek def sport parce que am na fi ñu dëkk ñu dëkk fii ci koñ bi xëy na sport neexu leen mais ñu ngi yëngatu ci ci mbirum aar il faut que ñoom it ngeen sedd leen jox leen seen wàll loolu daal laa leen laa amoon ci lu may lu may wax di leen di leen di leen di leen di leen gërëm di leen sant. ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak sant ci yoon jotaay yu mel nii dañoo war dañu ko nuyu président waaye comme jigéen ñi jël ñu kàddu ñoom laa njëkk a maa ngi nuyu jigéen ñi teew ñëpp vraiment di leen yóbbante ci seen président. ngeen jot ñu ko nuyoo boo xam ne euh, nuyoo bi ñor la di nuyu président Babacar moom ak ñi nekk ci équipe di nuyu Fallou di jaarle ci moom nuyoo boo xam ne ñëpp ñi féete mag te encadré Grand vraiment sama xarit kese te di ko yóbbante ci le ministre Thierno Alassane xam ne suñu frère la suñu xarit la aussi ndax balaa ñu doon nekk ay leader ci lycée Malick Sy moom moo fa nekkoon ak ñeñ ko jiitu woon ñu ñëwee lañu jàngat ci seen jaar-jaar lu ñu rafetlu la te boobaak léegi relation yooyu mosul euh, kon su fekkee jataay bu mel nii mi ngi doon am fekk mu am lu mu mébatoon ci digganteem ak yéen ñu jël ko boole ko mu nekk benn loolu ak bu rafet la te Cees lu mel nii moo fi war a yaatu te boobaak léegi lu mel noonu lay prôné ndax kenn ku ci nekk am na loo mënal dëkk bi moom am na luñ ko dénk loo xam ne Thiès soxla na ko muy lu jëm ci énergie ak énergie renouvelable bëri na gox yu nekk biir Thiès yoo xam ne xëy na loolu manqué na fa te ma wax ceeg moom ne ko dama bëgg nga dugal ci sa loxo def ci loo loo man ba gox bu amul woon vraiment ay làmp ak yu ni mel man ko am te bu amee man dinaa wax ñëpp na yaa def li ma soxal du ñu ne daalaa def li ma soxal mooy na am ba waa Thiès mën koo jëriñ euh, leneen li ci des mooy euh, wax leen ne Doudou mi nga xamante ni mooy directeur du stade bi euh, ñun dañ koy gërëm ndax nag lu rafet rek ci lay dox fu mu toll lépp loo xamante ni jàpp na ne lu baax la te jëm. ci ñiy yëngatu ci wàllu sport ci dëkk bi mi ngi fexe di ma ko yëgal su ma mënta jot mu jaarale ko ci Ablaye Diaw mi nga xam ne moom moo yore bureau sport ci mairie bi wala mu jaarale ko ci Ismaïla Diallo mi nga xam ne mooy président commission sport tamit ci conseil bi nga xam ne moo nekk ci biir de Thiès euh, suñu bokk yi nga xam ne ñooy tas xibaar bi mën ñu leen a fàtte ngir jottali bi ñuy jottali yenn saa yi day am lu mu yombal ci mobilisation nit ñi ak ci attirer seen attention ci taxawaay bi ñu am notamment pour jëm vers ay nawetaan yoo xam ne dinañ leen def te violence la chaque fois que ma am occasion rappeler loolu dama koy def parce que jongante jaadu na waaye violence bi jaadu donc lu ñu mën ci wéyal li doon def at yi mooy di ko def te violence du ndax loolooy tax waa Thiès tamit. gën a sawar ci li jàpp ndax souvent bu ñu jëlee dara def ci dañ ne dañ koy gërëmee taala si la mais toujours aussi du ma noppi di leen wax ne du man kees ndax lu lu génnee sama poos laay joxe dana dina arrivé mais maanaam li ëpp si lu leen di jox ci alalu waa Thiès la ñoom ñoo ko dajale sous forme de taxe sous forme d'impôt et cetera donc su fekkee ne waa Thiès dañoo dajale seen alal dugal ko ci benn activité ñi yore activité bi dañoo war a veiller ba du wëlbatiku contre doomu waa Thiès yooyu parce que bu violence amee rek mooy dafa mel ne waa Thiès dañoo def teranga ñu wëlbatiku vraiment faye leen lu safaanoo ak kenn kon suñu génnee ci loolu je pense que baax na ñu ñu gërëm aussi ASC bi ndax taxawaay boobu mu am tey jël turu Thiès di ko lawal ci anam yu rafet loolu ngeen di liggéey te le fait que mu tudd déjà grand Thiès rek moo yóbbaale na Thiès ndax xam nga di xew bërki dem ñeen ñi nee amoon nañ benn benn làmb ki am ko Sa am na ñoo xam ne dañ ne dañ koo faral rek ndax ndax Thiès lañ ci dégg voilà grand Thiès moom da leen leer ne boo demee ci fenn moom dañuy xam ne lii Thiès surtout nag grand bi ci topp na fekk kon forcément dañ leen di ñaanal ndam parce que bu ñu nee Grand Thiès am na ndam mooy Thiès am na ndam. alors vraiment euh, loolu bëgg naa ngeen dégg ko dina waa Thiès yëpp ak ASC bu ñu mënti bokk tey bu ngeen di dem da ngeen buy dem dafay demal waa Thiès yëpp mu mel ne catégorie yi bokkuñu mais loolu xéwal la euh, nag Grand Thiès dem jàmm di dem li may ñaan yàlla mooy. à partir de at mi ba yi ci topp suñu ko suñu boroom dee may kàttan du ñu seet catégorie bi dañuy seet ne ku yóbbu turu Thiès la kon su fekkee ne jàmm gën nee nañ dañ leen jagleel 2 millions pour jàppale leen Grand Thiès aussi day am tey maanaam tey mënoon nañ jóg ñële dañuy dem wuti pour Thiès ñii dañuy dem wuti pour Thiès te ñoom jongante wuñu seen euh, te kenn ku ci nekk dañoo bëgg moom te li bii soxla la bee soxla ndax ñoo tolloo ñiy fubal ñoo tolloo ñi leen di encadré ñoo tolloo temps bu ñuy fubal ak yëpp donc te bu ci am ndam rek ndamu Cees la kon bu ci yàlla àndee si ñu tëralee di ñaan suñu borom àggaleel na ko balaa ngeen di dem euh, fas nañu yéene làkkat yi 2 millions yoo xam ne balaa ngeen di dem ñu bale euh, lu ko jiitu nag fas naa yéene jokkoo ak euh, maire Ziguinchor di sama collègue Abdoulaye Baldé di sama xarit aussi euh, ngir dama tàmbali woon ak moom waxtaan pour Thiès jumelé ak Ziguinchor ndax ba ma bëgg Thiès jumelé ak Ziguinchor bëgg Thiès jumelé ak Dakar bëgg Thiès jumelé ak Saint-Louis alors comme occasion bi mi ngi am euh, incha allah bëgg naa jiitu leen fa xam naa bu ngeen di ñëw ne du ngeen fekk ndax dama war a dem liggéeyali Thiès feneen ci loo xam ne dafay jàmp te yi muy am euh, du mën a may man ma fekkee compétition mais bu ci yàlla àndee bëgg naa leen fa jiitu ngir waajalaale ñëw bi bu ko defee su ma demee waxtaan ak ñoom ndax bëgg naa sàkku ci maire yu Ziguinchor ginnaaw bu ñuy supporter seen équipe ñu ñëw di supporter wàlle suñu ñu doon acte bu njëkk boo xam ne war naa amee ci jumelage bi euh, je loolu mën na yokk dara si moral beneen bi am naa yéene dem seeti étudiant Thiès yi ne foofu ndax du ñëpp ñibbi euh, am na ñu fa des te am nañ ci ñoo xam ne condition yi nekk xëy na xaw na jafe bëgg naa leen seeti leen et waxaale ak ñoom tamit que ñu teeruwaale équipe yi jàppale leen ci match yi fa nekk ndax ñoom ñu ngi ca dëkk ba ndax aw xaw nañ ko miin xëy na ku la jiitu ci barab parfois mu xam faloo euh, la ca des mooy bu ñu demee xool opportunité ya fa am bunt buñ fa mën a gis mu mën a yombal dara ci seen taxawaay foofu muy yéen ak jàmm ak yëpp incha allah jëm ko xool ba ca des nag mooy danañu xool fii ak dem bi nan la ñu mën a accompagner presse ba ñoom ñu man faa am vraiment ay yombal yu leen fa mën a yóbbu ak yu leen fa mën a nekkal ba ñuy mën a jot li waa la fay xew loolu aussi incha allah. fas nañu suñu loxo lii daal moo moom mooy kàddu bi nga xam moom laa leen bëggoon a di ànd ak yéen di bokk ak ñaan bi ngir loolu mooy suñu liggéey loolu moo ñu war mooy fexe di teewal Thiès di fexe Thiès lépp lu koy yokk lu mën a ba mu am ci lu mu gën a jàmmoo ci lu mu gën a dalee te li gaañ di tuddee politique te muy politique partisane bañ ci te loolu mooy par parlo li ñu war mooy fexe rassembler keesuwaay yi autour de li leen ñor nga xam ne duñ ci seet kii diine bi la bokk wala kii tarixa bii la bokk kii parti bii la bokk wala kee coalition parti bee la bokk wala kee ci waaso bii la bokk maanaam ethnie wala bii làkk lay làkk wala dafa ñuul wala def xees liñ ciy seet mooy waa Cees la walla même bu dul waa Cees di ku bëgg Cees ndax am na ñu dul waa Thiès te bëgg Thiès ñooñu ñëpp nañ leen leen mën a dajale ngir loo xamante ni na yokk dëkk pour que Thiès di mën a nekk exemple pour que waa Sénégal di mën a roy ci Thiès ngir dañu nekkee ngir ni ñu amee jàmm ngir ni mu doone dëkk boo xamante ne bu neexee nekk lii mooy li nga xam ne moom laa leen mu bëggoon donc je voudrais